mooy seen mémorandum bi nee nañu Macky Sall saa su nekk dafay bëgg di toroxal di rey ñi nga xam ne ñooy opposants yi te loolee teguwul fenn te Macky Sall bi mu nekkee ci bopp réewum Sénégal ba léegi dafay def ay acharnement ci ñi nga xam ne ñooy opposition bi jaarale ko ci assemblée nationale wala mu jaarale ko ci justice bi maanaam nag ñenn ñi sax dafay bëgg ñu daal ñëw ànd ak mooma lu may loole rek mu bëgg leen a teg fin na Sall ci boppam moo bëgg te gis kenn kuy opposé si réew mi jamono xam ne nag bëri na ay réew yoo xam ne ñoo ngi xool ay pexe ngir nag génne seenu askan ci jafe-jafe yi nga xam ne coronavirus bi leen ko jamono jooju nag Macky dafa bëgg a détruire yàq boo xam ne daf ko sonal lool tudd Ousmane Sonko te mboolem li nga xam ne xew na ci réew mi Macky la ci yéen a kaay gi de Le Quotidien mouvement pour la défense de la démocratie ñoom nag nee nañu danañu porte plainte Macky Sall ci kanamu juridiction internationale yi ci yéen a kaay gi di Sud Quotidien ñoom mouvement pour la défense de la démocratie nee nañu ab complot d'état moo tax lu toll bëgg a toroxal ñi nga xam ne ñooy ay xoolal ni nga xam ne moom la def Karim Wade def ko Khalifa Sall jamono ji nga xam ne bëgg na koo def Ousmane Sonko ci la askanu Sénégal jóg na ko trop c'est trop yéen a kaay gi di Direct News xëy duñu xibaar scandale foncier bi nga xam ne am na ci diwaanu Almadi lu jëm ci wàllum escroquerie boo xam ne ñoo ngi ciy tudd Mame Boye Diao ak Lamine mi nga xam ne mooy directeur général bu IPRES yéen gi di Rewmi Quotidien ñu xëy fekk fa Khalifa Sall mi fi nekkoon maire bu Ndakaaru muy weddi ndax ni ki démb journal L'Observateur dafa bindoo ne Khalifa Sall nee na nag du jàppale kenn ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal ci mairie bu Ndakaaru te lu jëm ci wàllum candidature kenn du ko ci dégg mu wax ci Khalifa Sall nee mbooleem li nga xam ne l'observateur bindal na ko ko niki démb lépp ay kàcce fen la amul lenn loo xam ne nekk na ci dëgg ndax amul kenn koo xam ne séq naa ak moom ab audience wala ma séq ak moom ab interview Assane Samb xëy jël xalimaam nee na Khalifa Sall ak demanti nga xam ne def na ko loole a a coalition bu nekk ci opposition bi yéen kaay gi de las lu jëm ci wàllum accès à l'électricité état bu Sénégal lu toll ci téeméer rek fukk ak juróomi junni ci ay lamp yoo xam ne bëgg nañu ko yóbbu ci monde rural bi yéen kaay gi nee na PUDC bi phase 2 bi lu toll si ñaari junni ci ay village bëgg nañu ko électrifier yéen kaay gi de Les Échos xëy ci njombe gi nga xam ne moo xewoon ca diwaanu géej waaye xale bi nga xam ne da doon raxas ab oto fekk ci ak fetal jël ko di safoo ba rey benn xaritama yéen kaay gi na oto boobi nag ki ko moom ak ki moom fetal bi teg nañu ko loxo ko ndax amutoon autorisation de port d'arme yéenekaay gi di réew mi quotidien wax ci furam de états généraux bi nga xam ne Ousmane Sonko ni ki démb daan si participer ndax forum boobee dañu fa doon waxtaanee lu jëm ci wàllum éco Ousmane sonk nag moom li nga xam ne mooy xalaatama maanaam ab monnaie africaine ab monnaie boo xam ne Afrique ñoo koy moomal seen bopp kenn bañ leen a tënk ci lu jëm ci wàllum monnaie moom Ousmane Sonko nee na dafa am loo xamante ni nag wàllum souveraineté économique nit ki nag dafay man mu moom boppam wala mu mën a moom boppam moom Ousmane Sonko di sàkku ñu génn ci li nga xam ne mooy franc CFA chef d'état yi nga xam ne ñoo nekk nag ci déndu Afrique dafa mel ni priorité yi xamuñu ko yéen kaay gi di source nee na ndaje mi nga xam ne ni ki démb doon nañu ko amal ca Lomé Ousmane Sonko nag dafa porox ndool yekk lu mel ni xamee ñi nga xam ne nag ñooy ay chef d'état nekk ci déndu Afrique nee na am na ay chef d'état yoo xamante ni ay nit ñu irresponsable lañ Ousmane Sonko nee na chef d'état africain yi ñenn ci ñoom dañuy pasar pasare li nga xam ne mooy alalu xam ne moom la leen askan wi dénk yoo xam ne teguwul fenn ba pare bëgg wëlbatiku naan bal leen loole nag maanaam mbir la moo xam ne kenn xamul lu mu niroo yéen a kaay gi de l'info lu jëm ci wàllum éco ak wàllum franc fa du loole nag mooy solution bi te du loole nag mooy ab monnaie de développement waxi Ousmane Sonko la yéen a kaay gi de esat xëy dañu xibaar naa ñu ci ay xibaar Zinedine Zidane dafa jóge fi nga xam ne mooy Real Madrid am na ñoo xam ne jàpp nañ ne Antonio Conte soo muy tuule moo koy wuto yéen a kaay gi ne na Edouard Mendy gólub Chelsea bi nga xam ne fan yi amoon na gaañu-gaañu jamono ji na commencé war na entraînement a kaay gi de sunu làmb xëy dañu xibaar naan ñu ñaari doomi